jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am mbégte ak kontaante comme nuñ leen koy defalee saa su maa leen ko digoon defal naa leen ko maa ngi fii ci fi nga xamante ne mooy Petersen fi xale yi di ne wala ñu ci bari di dóor waar li nga xamante ne mooy seen liggéey tey ma seet si mbër am envie fekk ko fi nga xamante ne fa lay dóoree waar def li nga xamante ne mooy liggéeyam tey ma ñëw seet si mbay guy gi la grand champion. barki démb gis ngeen signature contrat bi nga xamante ni def na ko ci diggante ak Mame Balla bu Géejawaay Mame Balla mi nga xamante ni woon pikin mbooloo la nekkoon waaye Mame Balla moomu lay bëreel ki ko tëgg di Fallou Ndiaye wala Assane Ndiaye Assane Ndiaye moo tëgg làmb jooju mbokki ñaari xale yooyu ku leen boole ci làmb mu neex mbay guy gi bu bàkkoo mu neex su bëree mu neex bu jaayee combat bi nga yaakaar boobu rek la mu ne mooy mbër boo xamante ni polyvalent la mun na jaay mun na jaay dàll mun na jaay làmb mun na mun def mystique. mbay maa ngi lay nuyu. doom yaay maa lay fay di wax ginnaaw bon sant yàlla ah, ñu ngi julli si yoneen bi di gërëm sunu ñaari waajur di la bëggee di nuyu sa caméraman di bëggee sama gaay yi ku ci mel ni sunu mag sunu xarit Mod Lama sunu pataron ak Babacar sama doomu ndey ak Mor Diouf ak ñaari saal di nuyu sama booy Maf di nuyu mbay ak Moussa di nuyu Dame Cissé ak baay Laat maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu képp ku ne Petersen naa yokkal ma jaay la maa ngi lay nuyu di la bëggee di la ñaanal jam di nuyu ñoom jàmme gaa yëpp maa leen di bëggee daal Petersen bi ku naan yokkal ma jaay rek maa lay bëggee ak Cheikh Thiaw sama doomu ndey sama xarit borom sàndaga mbay hmm. kañ nga dugg ci làmb. man làmb ma xool làmb foog naa ay 2000 ay 2012 wala 2013 ah. waaw laa njëkk a laa njëkk a bëre. yaa Fils Balla yéen a bokkandoo benn date bi ngeen duggandoo ci la. bokkandoo benn date daanaka ah, mooy lool. Mhm. nga dugg bëre ñaata combat. man fa maa ci ay 14 combat fi ne nii ah. waaw. victoire. ma xool fi mu ne nii foog naa maa ngi ci ay ñaata victoire 14 combat foog naa ma ngi ci ay 11 victoire ah. kana kana la daan. waaw Fils de Balla bi nga wax daan na ma. ak rawaan 2. ak Laay Gorda ñooñoo ma daan. ñi la daan ñëpp ay champion lañ fils de Balla rawaan deux Brock énergie ak Laay Gote rakk euh, Modou Anta. waaw ñooñu waaw mais fi mu ne nii wax dëgg xoolatuma leen ah ci laam wax dëgg maay sant yàlla ñooñu ma daan ñëpp fi mu ne nii defe naa ne maa leen sut fo maa leen ëpp kase ci làmb kon sant yàlla ah. Fils de Balla moom ëppoo ko kase rawoo ko. kase fuuf bokkuñu sax maa ngi moom. du dem jël général Malika nga ne yaa ko. naa jël général bu Malika mais bokkuñu. leer na ma ne liñ ko fay bu ma ko waxoon ma wax la liñ ma fay duñ benn. bokkuñu quoi parce que da ngay xam ne supporters yi da ciy bokk mbay guy gi bu jógee Sandaga jóg bawal jóg. di profité di nuyu waa Refane tout ak képp ku naan ku dëkk bawal doon bawal deretu bawal bawal di daw sa yaram ak sama papa Bada Dione ki nga xam ne tey jii ginnaaw yàlla su ma tolloo fii ci làmb moo tax ak sama waa dëkk nag waa Réfane boox waaw di nuyu sama sëriñ sëñ Tafa Diouf borom boox ak Njaañ ñu ngi koy béggee di béggee ñëpp ah di nuyu sama yaay ak sunu waa dëkk di nuyu sama rak Sayer Ngom waaw. mais ñaata mbër nga daan ci làmb waaw ñi ma daan kay onze combats li ma. daan naa John Kara bu écrit Balla Gaye daan mécanicien bu ginaaw raay bu ginnaaw raay daan naa ko daan bébé Farba euh, daan dab daan dab daan menn mi ma xool daan Alioune Seye Junior. Alioune menn mi bëreeg Tapha Mbeur. Alioune Seye Junior bëreeg Tapha daan ci ay sigoon kooku moom rang muy gaaw bi laa ko may ma xool daan Sidi Diama gën daan Sidi Diama gën menn waaw ma xool. bu may limb gaa yi fii ba suba mën naa fee nii. ni xale yi ës yëpp ma wax da ay Sidi jàmm gan. maa bëreeg sama morom booy yi ma doon ñi ma ñoo ñëpp bi may bëreeg ñoom ñoo ma mag. ñoom ñëpp bi may bëreeg ñoom ñoo ma mag ñoom ñëpp. mooy loolu yaa ma gën a xam. bëreeg laay bee numéro 2 daan ko bu Dalifor yaa ma gën a xam. sa dernier combat koo ko bëreel. Alioune Seye Signor. ba bu gaaw ba rek. moom kay gaaw rek borom sigoon yi onze sigoon xaw ma. waaw. lan moo tax lan moo tax nga ñëw rek bërtali Alioune Seye rek bu ko fata fataxee daan ko def ko noonu fatax fataxee ko rek daan ko daa am doole wala yaa ko pon doole. maa ko doole te ñoo ñëpp ay grand lañ man képp ku ma si dajat rek nee naa leen aw ma stratégie bu may teg comme bu may bëreeg yow naa la lii laay def wala lii dama lay wax li may def du ma si bàyyi dara te bu lam jaay loolu laay def loo mën a fatt nag nga fatt ko comme tey ji maam Balla moom mu ngi def le tout. dinaa ñëw ci Mame <laughs> ci waaw est-ce nga ma li may def laa lay wax duma ci hésité dara duma ci daw dara bu arbitre soufflé it loolu laay def parce que xale laa dama bëre dama bëre ñàkk ay combat dem ba ximbile ko ci làmb tollootuma fu ma waay di naxe ku foog ne fim mu ne nii mën nga maa nax yaay nax sa bopp naxanteetu ma amul dara damay ñëw indi doole ji wóor péng est-ce nga ma lijjanti lépp ba mu doy ma ñëw dëggal sama bopp te bés bu ma simekoo yow rek première defet mooy simeku bu ma simekoo rek daan naa la première ñu bëre waat ma tegaat la ci muy deux yoon man chaque lamb deux victoire la parce que dinaa indi forme bu ma la jàppee daan la. Mhm, di nga indi forme macha allah sa combat yi nga bëre yëpp moo xam nga am ci ndam moo xam nga ñàkk ku la gis day xam ni liggéey nga ànd nga ceeg combat bi ànd nga ceeg say mbokk léegi nga jógee ci Alioune Seye Junior dem yóotu Mame Balla jàngoro yëpp dajaloo nga jël siti te siti du weer maam Balla boo gisee ni mu def Tapha Mbeur bërki démb stade Diop Iba Mar Diop nga xam ne maam la ma woon ba tey moo fi ne. waaw maam Balla grand la moo ma may sama grand la maa ngi koy nuyu ah ma may chance làmb la man ak moom maa ko laaj fu ne laaj ko ci télé bu ne laaj ko ci sit bu ne tey nag yàlla def nañu taxaw ñu ngi séenu man mi li ma ko doon laaja lan laa war a mën a def li may def nag bu suur baa dinañ xam lan la. waaw parce que man nag boon da nga ne Tapha Mbeur ne mbay Gouye Gui Tapha Mbeur du ma moroomam bokkuñu man ak moom est-ce que dégg nga ma maa moom bokkuñu ki ma mujj a daan ci ay secondes moo ko jàpp fii bërki de moo njaay ñoom ñaar seen combat yàgg na torop waaw kon loolu rek wane na firmba te bu ma bëreeg maam Balla ba pare dinañ xam ne mbay mbay guy gi teg na bëtam feneen fudul fii ñii du maag ñoom te balaa nga cee xam dara keroog làmb jot bu boobaa di nga xam ne ku ñime dañ laa deey dafa bëreeg moom Mame Balla def ko lu rëy te Mame Balla ku ko xam-xam ne bu ñu naan top cinq moo ko moom amul mbër bu mu bëreel te duggoo top 5. ba ci moog tafa mbër bi mujj rek dugal na ko top cinq yaa ngi koy xeeb dana la fa yóbbu de. non wax dëgg fa yàlla bu man ko naree xeeb rek. bu ma ko naree xeeb yàlla na ma daan. bu dee xeeb naa ko lu toll nii ci entraînement wala ci mystique wala ci lépp su ma ko naree xeeb rek yàlla na ma daan parce que ku jël sa avance am na ay mbok man am naa ay mbok dem naa waaji dem na waaji ñu ngi xaar ñu wutal ñu dat ñu bëre te dama koy respecté def lu wóor incha allah yoot ko ba jàpp ko daan ko te dinaa ko jàpp te dinaa ko daan loolu moom amul sax sikki sàkk. maam euh, dama seetlu combat bi amagoo leen dat mais jël nga avancement Balla mais dem toogoo. Mhm. yaa ngi ci àll bi fu ne nga dugg fa nekk ci mystique yi correct signature ba bi nga ñëwee seen première face à rek pour man tay la làmb ji yor nga ay laar takk béjjën yor leket yor lu ne lan la maam Balla mystique a koy daan. waaw maam Balla mystique daanu ko sax mais danoo toll foo xam ne dañ di ay ndaw nekk Sénégal ku ne teg ñu bët. lu ñu def rek dañoo war a def defuma pour maam Balla damay def pour aar sama yaram parce que fu ne ñu ngi fi ci YouTube bi ne ci vidéo yi di def yu reeloo gars yi ak affaire yooyu chaque jour dañu war a protéger suñu bopp pour yàlla musul ñu ci cat ak làmmeñ ak yooyu quoi mais pas ba maam Balla maam doole koy daan te doole jooju moom bu bés baa buñ simee dinañ xam ne doole jaa ngi fi ah. incha allah. yaa ngi ko ëpp doole. non max dëgg fa yàlla bàyyi leen ba bés ba ban simé ko mais maam mag la man xale laa mënuñu bokk man ak moom. ku lépp maa ko top 5 lañ koy wax bu bés ba top 5 boobee moo fa nar a dugg li ma la wax téere la mu la neexee dencal vidéo yi maam Balla fii ba fukk du daan du niil loolu na ko xam mu ngi bëre xale boo xam ne Sandaga dañoo ne ci ginnaawam seen commerçant yi waa Bawal Medina. ñëpp ne sama ginnaaw tamit nag man war na maa ne sax di sikki sàkka wala may am yu may maayeen wala dara. Balla nee na ma. Mhm. jiili ma ne waaw ah, mu ne woo booy bi dama koy def yëfi xale. Mhm. dama koy bàyyi mu préparer làmbam. ba ñëw ci làmb ja la nga yaakaar du demee noonu maa la ëpp doole moo la gën a wow moo la dàq bëre moo la dàq xeex boo xeexee dina dóor nga daanu soo bëree bu dina buddi ba ci kaw dóor ci suuf wala nga dugg top 5 top 5 un mois moom yàlla nañu ci yàlla musal. yàlla sunu borom na ma ba làmb laa ne de du ma wax ne làmb moom képp ku ma ci dajet nga bëgg maa duma di nga gaaw a ñibbi quoi parce que mbay guy gi mënu ngeen a ku ngeen taxaw rek nga ne kii da koy duma ci ponkal mu toll ni man. est-ce nga man képp ku ma jéem a duma ci làmb ma daan la dem sama yoon Balla ponkal la maam Balla ponkal la champion la grand frère la def na fi lu ne daan fi champion mais bu at bi génne suñu diggante rek nga xam ne barke borom Touba ah kuy gàmmoo kuy raas dem du nu benn tamit. ba moom Moussa Ndoye stade Diop Iba Mar keroog képp kuy commerçant ba nga wàcce dem nga seetaane lamb. yëpp am na takku saanam ak ay Moussa Ndoye looloo tax ñu bëgg a reefe bëreeg moom daan ko dem jëli ñoom Moussa Ndoye ñooñ te ci kattanu yàlla dinañ ko daan yàlla rek a mën nag ah, moo tax ñuy wax ni. di kii mais ci kattanu yàlla dañ koy daan incha allah rabbi jël bu rëy waaw Cissé Thiam borom kawlax kooku ba dal maa deey daal Cissé Thiam borom Kaolack dal maa deey. lamb ji ñaata nga ci def ci mystique. non lamb ji mystique Cissé Thiam nee na ma bul dem fan mais dem nga instant yi keroog sànq maa ngi yow ñu ngi waxtaan. man la li nga ci def ci làmb ji ci mystique mat na trois cent mille. nga waat ni ma ëpp na. non li ma ci def ci mystique ëpp na cinq cent mille mu ne nii rek nii combat bi taxaw rek li ma ci def ëpp na lool mais la nee naa la defuma ko pour moom dama koy def pour aar sama yaram ak aar nit ñeeg bët yeeg yooy mais si sa caam nee na ma bul tiit bul ragal ci kàttanu yàlla da nga am ndam moo tax tiituma dara kooku ginnaaw yàlla ak yónnent bi ak Serigne Touba mi ma yaakaar. Hmm? sama wéeruwaay la te xam naa ne fi ma wéeru wéeru naa fu dëgër muy Cissé Thiam borom kaw la ragaluma lool ak sama papa Ngopa ñooñ laa wéeru wéeru ci Babacar sama doomu ndey bi bu moon la ma ak daam Cissé sama waay la sama xarit la nee na sax léegi jaratul ma koy tudd mooy lool mais moom mënu ma ko ñàkk tudd kenn la ci man xam naa fi mu toll ci man ak ku ci mel ni Xaadim Thiam ak ñoom seex Mbaj ñoom laay ñoom moodu ma ñam gars yi ñoom Laat Cissé gars yi dañuy yëkkati xaalis. ma ñam ngeen ko tuddee. ma ñam lañ ko tuddee ma ñam lu lomb mu ne ma ñam mais nag. loolu mooy loolu rek xam nga rek lekkantu daa neex quoi yaa ma gën a xam ak Aliou Ba sama doomu ndey sama xarit ak Cheikh Thiaw Sandaga si dañuy day tey juba suba sama waay la nag parce que daa dem ba siin jëndal ma ñaari ensemble yu rafet ak montar indil ma ko man nee naa commerçant yi ku ci xëccoog man rek ma yóbbu la laaba sina waaw xaadim caam sama doomu ndey sama xarit. keroog sa keroog làmb ja kon arène nationale ku gis maam Balla dugg si gis euh, mbay guy gi dugg si kon war nañoo mën a njorti ni mbay guy gi dina duy stade bi ba mu fees indi ambiance bëre bi xeex xeex bi daan daan bi mystique la. wala confiance la wala mën a bëre la wala foo ko teg. confiance ak mën a bëre ak am fulla fayda ci li may def ak am fit làmb bu ma demee ba ci tiit lu toll nii ma ba ko seeti leneen ñëw fii fii xam nga xëy wàcc la jaay am sa bénéfice wàcc dem ñibbi man maa taamu làmb ba mu dugg ma ba mu neex ma ma dugg si bu ma amee leen lu ma siy tiit ma bàyyi dem seeti leneen est-ce que dégg nga ma maam Balla dinaa ñëw ak ñi ma daan àndal du ma changé dara ànd ak samay mbokk ànd ak samay fans ànd ak samay supporters ànd ak ñi may bëgg te yàlla tax ah ñëw def lépp li ma daan def du ma changé dara yokku laay gën a def ñëw bëre jàpp ko daan ko bu taxawee du nu bëre ay minutes ay secondes laay bëreek moom wax naa ko bëreek moom ay secondes jàpp ko daan ko bu dawee mm, bu dawee nag yàllaa xam mën nañ faa ne di wërwërloo bu dawee mais bu taxawee xanaa moo combat bi te xamal lu ma ci def. maax la ko tey jii du ma fi ne sax di bëre damay dëggal sama bopp xeex ak moom ban xam ne mën na maa xeex ma door koo jàpp daan ko. xeex ak moom laa la wax fii laa la ko waxee de damay xeex ak moom ba xaj te maa la ko wax tey du gis ku xeex laay répété. ñemewul nëbbuma la dara damay xeex damay xeex ak moom. na def lool ci boppam damay xeex de maa la ko wax fii tey. gaa yëpp nee nañ ma bëre bi moom leer na. dangay ngay wane xeex bi ba gaa yi xam ne yaay xeex waaw. mais làmb ñaar ko yor fetal la ak fitt buñ la séentoo ci fetal nga fitt maam bala bu koree ma kor bu may dóor fii ba suba bu dóoree ñaar bu ma dooree benn mu defeenu bokkuñu. loxo gën a diis loxo. non liggéey. xale la ak loxo liggéey. lekk. xam nga lekk alimentation bu am vitamine bokkee lekk loo xam ne amul vitamine. ñun li li muy lekk amul vitamine. non moo xam li mu lekk de. man dama lekk ay vitamine dama lekk da sama alimentation lépp vitamine la. lan ak lan ngay lekk lu am hamburger pizza. est-ce que dégg nga ma ay Norvège. Ah, vitamine lay wax de ay Norvège ay fromage gruyère yooyu. est-ce que dégg nga ma man yooyu laay lekk quoi xam nga rek moo tax mbër yu bëri maa ñoom bu sime ko kenn du leen xool parce que. ay cere mbaxalu Saalum yooyu amul amul vitamine lekk de day daw biir yooyu du ma ko lekk man ay hamburger pizza yaa ma gën a xam. cere ji sax mooy lool daanaa ko lekk dëkk ba muy wax dëgg ndakaaru moom boo fi ñëwee day neex vitamine yi hamburger yi du caaxaan nga laal ci ketchup ba mu saf. chaque jour ñaata hamburger ngay lekk. non bu ma xëyee bu may dem saal damay ñëw jël ñebe téeméer ñebe ndambe téeméer ak ñaari kilo mburu ma dóoree ñaari kilo mburu ak ñebe téeméer dem entre entraînement ñëw saal. su ma demee yëkkati xam nga affaire yi day rees su ma ñëwee jël benn kilo mburu ak ton dóor ko xaar añ. dolliwaat ko ci muy 3 kilos ma xaar añ. bu añ bi jotee te damay añ damay añ ñaari palaatu ceeb la ñuy boole defal ma ko benn ñaari palaatu ceeb buñ ma defalee ñaari palaatu ceeb yi ma dóor ko naan ndox dem kër ga jël benn doomu xaal xaal benn doomu xaal ma dag ko ci digg bi yor kuddu lekk ko ba mu jeex ma tëdd récupéré ba 5 heures waaw raaj waaw du ma defeenu nag da ngay raaj est-ce nga ma su ma jógee balaa maa dem saal balaa maa dem géej ma yónnee banaana ñaar téeméer. lekkaat ko ci dolli ko ci. dolli ko ci bu ma ko ci dollee dem géej. contact simeeku contact. may guy gi nga baal ba mais xalaa ko sa mbooloo yi sax daa am mbaq. kon fii moom lépp am mbaq. yaram wi day dox fu deret yiy jaar rek xamal ne lekk gi dafay dugg. est-ce que dégg ma bu ma dóoree loolu nag dem maaro ñëw contact ba lépp reesaat nga ñëw lépp day rees affaire yi day rees waaw parce que yaa ma gën a xam machine bi daa baax bu kiiyee ma ñëw reer affaire yi no damay laal ñaari double hamburger rek wala ma laal pizza bu mag dóor ko dóor butéelu boiseau si naturel bu mag dóor ko ne ci jàmm nag tëdd relax ne ci whatsapp bi waxtaan seetaan télé mu xaw a wàcc man nelaw man nelawee nelaw bu wàccee man nelaw boo nelawee bu nelaw boo nelawee dangay nelaw 6 heures ci fajar ma dem géej wala ma nelaw ba ay 10 heures ma yeew dem saal. waaw noonu laa koy jàpp daal moom guddi gi sax boo xasee départ moom di nelaw doo waat di lekk. non du ma waat di lekk moom wax dëgg damay nelaw récupérer nice bu ma yeewoo nag dina xam ne li ma lekk moom vitamines yi dugg na. nice te boo ma nee jàq xam ne li ma lekk moom. mais loolu journée dix bi la yaa di julli. non loolu du problème loolu baakar bu mod la ma mi chaque jour ma ñëwee mu jox ma ko wala lama patron waaw sunu patron. 30 jours yi de 300000 la sëñ Bas. journée 10000. loolu commerçant yi mën nañ lépp lool tamit nag ñu yëkkati un million jox la ne la lekkal nga lekk Cheikh Diaw Sandaga may dem mu yëkkati 500000 ne ma bu jeexee nga ñëwaat sama doomu ndey sama xarit Cheikh comme combat yow ak Mame la foo koy waajee fii Sénégal wala da ngay dem. non bàyyil ma waaje fii rek garaawul comme ñu doon def rek mais bu yàlla defee it ñu war a dem ñu dem man bu ma demee musiba mbër yi am problème. ay léegi la laal. yi de foofu. bu ma demee ñu am problème. waaw double hamburger bi mooy benn hamburger. déggoo ma ne su ma demee ñu am problème bu ma demee rek ñu am problème laa ilaha illallah non problème bi ni am foofu fa la affaire yi gën a nekk dama xam ne foofu bu ma tëjoo zaal lekk ci hamburger yeeg pizza yi ma ñëwee fii est dinañ ma xàmme loolooy wax ji. xam naa ne de mbër mu bëgg lekk lay nduroo non sant. non damay lekk sant bi moom bàyyil ma leb ko rek. gaa yi yaa ma gën a xam. <laughs> billaahi mooy lool Abdou Sakho ngeen. ah ma kat war a simbi bay guy gi ku ko war a simbi daal la. mooy lool xam nga tey ji gaa yi dañ fi ne. man li ma gis aw ma si comme di wax lii te duma ko def li ma lay wax da seen nature ci man barke arxuraan li ma lay wax looloo nekk ci man du ma waxantu lépp lu ma lay wax jàppal na loolu ne ci man ni laay waxee ni laay bëree. yàlla nag mooy def li ko neex. ñun Balla ba mu neex la de nga ne ko sa déq lii laay tëdd man Mame Balla gisuma déq di. ab domino laa gis gis tablette chocolat yi ci biir. deq gi bu simee ko nga koy gis Mame Balla biir si daa xaw a xiibone kooku waaw mbiir si daa daa xiibon bu simee ko yii yëpp doo ci gis dara. fukki dërëm mburu bu ko lekkee fukki dërëm daa mën a lekk fukki dërëm mburu liibar moom mënu koo lekk fukki dërëm mën na koo lekk mais liibar bi moom da koy të. Ah. yaa ma gën a xam. billaay ki lekk libre de bas ak ki lekk 3 kilos par jour. mënuñoo moo tax saabu bu laalee nga xam ne duñ sax benn bokkuñu sax duñ benn. billaay walaay maa leen koy wax fii duñ benn yàlla rek a man mais bu bés baa di ngeen xam ne yàlla xale lay àndat dama xam ne Mor Diouf mais sama grand sama xarit est-ce que dégg nga ma. ñëw jógee entraînement donc mu xool la nga ne ci forme mu ne yëkkati cinquante mille ne la am hmm. loo bëgg lekkal est-ce que dégg nga ma. te chaque jour man na koy def nag xam nga looloo gën a garaaw kon man bu ma entraîné wut liggéeyu ma man dañ maa war a dóor ba ma bëgg dee. combat bi ban écurie nga koy préparé. écurie bi may écurie bi ma nekk écurie Bada John école de ba da John sunu papa Bada John ne fa ñoo ñoom Nokia yëgsil sama booy Amel Lagros bari ki démb la daan jël bu rëy est ce que dégg nga ma ñooñ rek ñi ma doon préparé laay préparé ah. waaw combat bi sax yaa ma gën a xam bëgguma ci indi poids dama ci yéeg din entraîné ci escalier. ba ñëw wow koŋ barke alxuraan nga xam ne bu ma timee ko yaay dinañ xam ne kii kafur réewul man daa am fu ma teg sama bët. ma jaaxal mooy lan loo siq guy gi mbay guy gi moom mooy lan. guy gi laal nga nag sama xol. kooku oh. yàlla def ma bëgg ko guy gi moom moo tax ma bëgg làmb ba dugg si làmb tey ak sam ginnaaw yàlla ak sama ñoom mag tafaatin ak ñoom Salloo sunu mag ñoom Mbay Juuf ñoom Ngunda. ñoom ngunda ñoo ñoo tax man ma bëgg làmb mais garage nag ak guy gi guy gi dafa ñëw suñu dëkk doon fa bëreek sunu benn mag muy njaaxum ñuy bëre bëre bu miti guy gi jàpp ko di ko yenn ñu naan di jóg guy gi di ko yëkkati di ko yëkkati ba daan ko est-ce que dégg nga ma ci laa ni kii man man ni kii laa bëgg a mel làmb ja at mi del si mu ñëw fa di bàkku suur boobu ma jóge fii boobu dama jaay ba am bénéfice ay cent mille ma weccee ko ko ay mille francs mais bi muy bàkkul daanaka cinquante mille yëpp laa ko may ndax bëgg ko ne ko man yow laa tudde sama bopp mais boobu duggaguma ci lam ni yow laa bëgg a mel mais dafa mel ni yàlla sunu borom loolu dal ma see wuyu quoi parce que guy gi moom daanaka boo ma xoolee rek daanaka war ngaa mën a gis guy gi yow santé pa bu ma simmee ko parce que mooy lool. wax ja rek boo waxee rek ñu xam ne yaa guy gi. moom laa moom laa bëgg mooy sama mbër. waaw guy gi moom mention spéciale parce que bëgg koo tax ma toll fi tey ci làmb gëm sama bopp gëmee ni mu gëmee boppam waaw. guy gi mës ngeen a déggante téléphone. maa ak moom chaque jour dañuy waxtaan mu may conseil yaa ma gën a xam. kon de ku ku yoroon 500 millions teg ko sa diggante yaa guy gi moom day yàqu. guy gi boo tegoon su milliard du ma bëree kooku dama koo bëgg te yàlla tax wax dëgg fa yàlla jinne ma teraanga jooj moom. du ma toog sax ci télé am na lu ma wax am na lu may defal loo xam ne du ma toog sax ci télé di ko wax parce que kooku guy gi moom même sax damay dem ba ci biir ne yorul xolu mbër quoi. parce que nit ku baax la ku am yërmande ci doomu aadama ku am doomu aadama guy gi guy gi nit ku baax la daal waaw. est loolu du yàq sa diggante waa Géejawaay. Géejawaay comme kan man Balla Gaye 2 rek sama xarit la. te mu ngi nii de léeg-léeg mu war a bëreeg Tapha Tine sunu mag Balla Gaye damay toog rek mu wooma ma Balla Gaye sama xarit la nee na ma danga man neex parce que ni may bëree ngay bare man booy soufflé làmb ji jeex daan mbaa daanu na jeex ku ne ñibbi du ma taxaw benn meer di am cardiaque di deeka dekki combat bu yàgg xalaatuma ko. man sama supporter yi daa bari ñu am kii. yooyu daanu affaire yi daanu bu yàggee mais bu gaawee dañuy kontaan ñibbi moo tax chaque jour huit fin bien fait. da nga leen rang muy gaaw loolu mbër yaa ngi koy jël ñaay dégg gaay di ko wax rang muy gaaw di di wax rang muy gaaw maa ko moom man Mbaye Gouy bu ko fi kenn jël di kii rang muy gaaw sama yëf la. xam nga nooy def da ngay dem BSDA nga protéger ko mbër bu waxati rang muy gaaw nga yóbbu ko ci yoon. ko ci yoon rang muy gaaw sama yëf la prip rang muy gaaw mu jeex. waaw yaa ma gën a xam. mbay léegi dañ la bàyyi rek. ñu tàggatoo la xam naa ne liñ amoon ci waxtu jot la ñu. waa géejawaay waay ngay bëreeg ñoom. bañ a waa waa way ki may bëreeg ki may bëreeg géejawaay la dëkk maam Balla lu leer laa lay wax. géejawaay daal boo bëggee dégg dëgg dama fa am ay ay idole ñoo xam ne daal ñaar Balla Gaye 2 ak ak guy gi te bu làmb ji neexee. am na am na Sa Thiès tamit. sama xarit bi may sutee gàllaaj Malick Balla Gaye 2 sama doomu ndey sama xarit Malick moo may suti gàllaaj moo ak Sa Thiès ñooy ànd suba ngoon. yaa ngi bëgg a yàq làmb ji de. nag lu ne mën naa am it. Ah, bu ah, ah, demee ba ci biir it xaalis bi bu génnee it lu ne mën naa am saa moom la ku ne ñaan nga yàlla bëre ak moom. te xam ne maa ngi moom suñu diggante it boo ci génnoon tey di nga gis wilti wilti parce que bëre di muy bëre laay bëre dañuy wër wër lool bëre bu rëy di nga ko gis waaw bu tegee ma teg dañuy dox daje rek xam naa ne mbëkkantee fay am bu boobaa it ma ñëw it mu neex rek wër-wër loo jar gàndal lu wëri bëre kese looloo fi ama ah. ah bu keroog ba Balla boobu keroog seen boobu la yàqu. nëtër rek. nëtër Balla sama waay la ma muy nëtër. Balla ma doon bëre saa it mooy loolu noon Balla Balla maay mbërëm. Balla dama bëre daanu guddi gi mu woo ma. ne ma jël bi moo lay def champion te boobu ba léegi yaa ma gën a xam mu ngi neex. billaay wallaay. yaa ma gën a xam di nuyu sama mag yi ne Colobane ñoom Cheikh mu ndaw ñoom usmaan Balla Mbaye ñoom Abdou Khadir Gas ak ñoom Assane Ngom ak ñoom Ousmane Ngom sama mag yi ne sama doom baay yëpp su bëre añ xaw ma lu muy jar ñoo may jëndal ñaari saaku ceeb. suuru hmm? combat jëndal ma lépp li ciy dem bu dee nag ñu jën nag rey wala xar ñu jën xar rey waaj combat beeg yëpp andi ma ma bëre daan ñoom aw ma seen fay xam nga toog ci télé bi sant leen rek laa man waaw nag di gërëm suñu patron la ma waaw place bii nu nekk moo ko moom ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal jàmm li moo xam li mu bëgg ak Mor sama patron di nuyu Babacar bu la ma sama doomu ndey sama xarit Dame Cissé nag moom aw ma fayam nee na bu ma ko gërëmati yéen gërëm yi mais sama waay la sama xarit la ñaari saal yi samay waay lañ samay xarit lañ ñooñ moom kenn lañ ci man quoi ñaari saal yi samay doomu ndey lañ samay xarit lañ ak Ibrahima. est-ce que dégg nga ma di gërëm Laat Cissé Cheikh Thiaw sàndaga aw ma fayam kooku it sama xarit la sama doomu ndey la est-ce que dégg nga ma képp ku ne petar seen naan yokkal ma jaay la maa ngi lay bégee di la ñaanal jàmm di nuyu Sayer ngoom sama rakk di nuyu Maf sama doomu ndey di nuyu Cissé Thiam dane ma combat bi sama komba la. lépp lu Cissé Thiam aw ma fayam kooku dama dem Kaolack mu teral ma rayal ma ay xar ay mis wi man xam nga ne foo ma tegale menum xar ne ma yow dong sa palaat lool mooy bëgg nga maa rey miss wi gàmmuwaat bi xar lëmm la ma tegal ne ma na jeex dama ko woo wax ko combat bi mu ne ma sama kombaala bul dem fenn kon xam nga ne kooku moom na xel dal bu dee milliard dina ko yëkkati jox ma bu dee ci ñaanal ma dina ma ñaanal man loolu leer na ma combat bi jël naa ko teg ko ci loxo Cissé teg ko ci loxo Ngopa sama papa mu tegal ma ko ci sama papa Cissé Thiam mu jàpp ci combat baa ngi noonu na ci jàpp lépp moom la di nuyu képp ku ne seen naan yokkal ma jaay la maa ngi lay bége di nuyu Midina bi yëpp di nuyu waa Bawal di nuyu ñëpp est-ce que dégg ma di nuyu sama benn mag bu ne itali muy Assane Diak ak sama benn mag bu ma bokka nday ak baay muy Tamsir maa ngi koy gërëm ak jabaram Awa di leen ñaanal jàmm di leen wax ñoo xam liñ bëgg yàlla na leen ko yàlla defal parce que ci yu mel nii ngay amee occasion profito gërëm ñi lay jàppale. parce que ñu yoruñu dara. ñu ñuy jàppale lay ñaanal ñu jàpp ci quoi xiiwal gi gën a yokku. waaw di gërëm ñëpp di gërëm sama waa dëkk waa Réfane boo di gërëm waa Bawol sans frontière di bëgg mbëri Bawol yëpp est-ce que dégg nga ma waa Falamboo di bawal maa ngi leen di bëgg di leen gërëm ay mbër lañ ñun mbër yi ne suñ biir di waxtaan di mànkoo di xàcceendoo di dóorandoo di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di wax it sama papa Pape Mayel li ma waxoon ci moom it maam Balla ne maa ngi koy gërëm ma ne ko xaalisu réew mi la kooku suñ papa la biñ ma nee taalube Serigne Touba la taalube seriñ kooku Serigne Touba rek la bëgg dama jooy. xam ne waruma waxtaalu bi Serigne Touba dara parce que man Serigne Touba laa bëgg. nga bëggoon merloo rek làmb xam na. merci des fois da nga bëggee merloo mbër. ba jaarale ko foofu waaye maam Balla laa bëggoon merloo pour wax ko tooñ ko rek. mais mooy Pape Mayel. maa ngi koy sant di ko gërëm kooku sunu papa la gis nañ ni muy jàppale sën yi te man it bëgg naa komba bi ma dem ci moom mu jàppale ma parce que sunu papa la mu ngi ñuy jàppale di mu ngi jàppale sën yi ni muy jàppale sën yi nag laa bëgg a dem mu merloo maam Balla rek mais sunu papa la te taalube Serigne Touba la te man ku bëgg Serigne Touba ma bëgg la. waaw ak kilifa diine yëpp ah waaw. jërëjëf mbokk yi noonu laay nuyoo ki nga xamante ni mooy borom Brésil borom Sao Paulo maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax doomu nday Garga Mbossé waaye Sénégal li muy rëy rey rëy rëy rëy sëñ Bas benn artiste la ab bu wala way buy Baye Ousmane Baye usmaan doomu Inte 3 bi nga xamante ni taalibe maam Saliou Ngunda Fall la dégg naa bàkk gi ma bàkk keroog néew ma fa waaye kontaan naa bu baax a baax a baax mbokk yi noonu laa leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqali ko ba léegi allah ci beneen xew-xew làmb dina neex di la yëngu jaageen jëf bi la fa leer nañ